présent dans la constitution de 2001 2016 on fait une révision euh, constitutionnelle mais on ne se prononce pas euh, sur le mandat qui est pris en compte ou pas alors yow Pape Malick Ndour je pose une question fermée à votre avis d'après votre lecture de la constitution est-ce que le président Sall a le droit de candidater pour une troisième fois man Pape Malick Ndour personne lambda ci ay disposition constitutionnelles est-ce que moi je suis habilité pour décréter en vérité est-ce que kii war na dem candidat wala demul candidat loolu d'abord. pas pour décréter mais euh, selon votre lecture. Non, non, mais, man, de la. constitution problème vous êtes un politique. waaw ah, quelle lecture est-ce que vous en avez. non non non c'est lecture bi ma ci am en toute honnêteté en toute sincérité aujourd'hui conseil constitutionnel la ñu wax ne moom mooy délibéré ci ki war dem ak war dem et la preuve quand on ñu def ko un débat juridique y des opinions yoo xam ne ku ci nekk day taxaw je suis docteur en droit Maurice il dit il n'a droit moi je vois un professeur en droit qui dit il a le droit je vois un autre docteur je vois un autre maîtrisard un autre maître un autre avocat donc c'est un débat qui est ouvert maintenant dans la aussi d'un débat qui est ouvert et pour mun a stabilité réew mi ñu mun ko garantir man de mon point de vue ki ko war a wax ak ki war a décréter moom mooy wax muy conseil constitutionnel moi je pense honnêtement que cette question-là est une question qui sera vidée par le Conseil constitutionnel nañu xaar ba le moment venu d'abord que la question même se pose mooy l'acte de candidature qui doit déclencher cette réflexion d'abord qui n'a pas été posée jusque-là su ñu bàyyee ba président Macky Sall déclenché ko ñu ne président Macky Sall bëgg na am beneen mandat léegi fan lañ koy waxtaanee ñu ne conseil constitutionnel dans ce cas là ñi ko war a wax dinañ ko wax. alors le président lui-même dit. Wow. dans l'entretien avec euh, de vue du droit. il a le droit de candidater. lui-même le dit. C'est lui qui maintenant, le c'est pas maintenant il ne se prononce pas non, définitivement. moom laa lay expliquer, c'est le président qui le dit. Ça c'est l'opinion du président de la République. Comme à un moment donné. Qui ne vous engage pas. Non non, moom dama la ne sincèrement de point de vue euh, man ci question bi ni ma koy poser je ne me base pas sur l'opinion de qui que ce soit. Surtout l'opinion du président de la République. Yaa ngi dégg man sincèrement opinion wu conseil constitutionnel te le moment venu le président posera l'acte de candidature conseil constitutionnel dina joxe avis am et dans ce cas bu mu munti joxe ñun en tant que républicain dañu respecté avis bi maintenant nag nekk fii di expliquer kii wax ay dispositions rappeler 2016 rappeler 2015 taxaw avec certitude na wéy am na droit tey nga joxe argument j'aurais bien aimé que toi-même en tant que juriste nous rappelle ton argument que tu avais au temps bu Ablaye Wade def candidat parce que aujourd'hui yow yaa ngi légitimer la candidature Ablaye Wade en 2012 tey yaa ngi koy légitimer donc j'aurais bien aimé en toute honnêteté. en sincérité non non non non non non voilà voilà non yow tu es au moins constant. yaa constant yow da bind non xaaral nekk candidat. non non non attendez laa wax loolu. Ah, kañ laa wax loolu. Ah, non quand même il faut arrêter. kañ laa wax loolu. continuer ma mais quand même c'est dangereux Amadou Ba c'est que Amadou Ba mooy toog di nettali waxtaanu xalif général des Mourides. ak Macky Sall non non non ma ne non pas faire un mandat. amul. man troisième mandat wu mënu fi nekk. ah donc da ngay xam nga kii. non Amadou man maa ngi la cap d'écran il est il faut arrêter xam nga nag vraiment il faut être sérieux dans le débat cest à déjà moi je tombais des nues ngay nekk di nettali ay waxtaanu xalif général des mourides ak président Macky Sall non xaaral rek xaaral rek ma la j'aurais bien aimé revoir encore cette ah, ah, mais li may wax li may wax c'est très simple euh, euh, na man ce que je dis mooy moom j'aurais bien aimé moom mi nga xam ne tey def na ay artifice juridique rassembler fi ay position juridique ba décréter ne en réalité Abdoulaye amoon na droit parce que conseil constitutionnel bu muy wax waxu constitution la j'aurais bien aimé que moom mu wax ñu en réalité qu'est-ce donc pour éviter tout ce débat là. vous avez combattu la candidature de Wade en 2011 Amadou Ba. il se trouve que nekkuma fi woon. waaw mais mais mais mais mais d'accord avec cette candidature non mais mu ne man dama ko topp ba mu sës. bon waaw waaw non du ko topp non c'est pas grave c'est pas grave tu n'as même pas besoin de répondre parce que ça va te mettre mal à l'aise comment ça ça va mais ça met pas mal chypriote tu étais chypre là comme tu dis foofu nga nekkoon parce que tu as fait un droit chypriote tu nous as dit donc duñu la duñu la sopp ba nga sës garaaw mais dama bëgg expliquer confond beaucoup de choses waaw dama bëgg expliquer on parle pas de candidat Ablaye je vous ai donné juste la position du ah, conseil non man dama la dagg donc loolu dama la topp ba mu sës si mbir bi garaaw su la neexee bu ci wax l'essentiel man li ma bëgg a wax mooy loolu c'est pas un débat qui se pose aujourd'hui le président de la République d'abord. mais on peut on peut vous retourner la même question. mooy lan quel quoi. le président Sall a combattu la troisième candidature. waaw mais voilà très bien très bonne question. xam nga man non non quand est-ce que non Barthélémy a fait euh, feu Ousmane Tanor moo leen ne. oui jàpp leen ci loolu. parce que mun na et cetera donc voilà donc léegi léegi maintenant maintenant maintenant maintenant un débat s'est posé ñi ko war a wax waxuñu ko ñi ko warta wax rek ñoo ko wax yaa ngi ñi ko war a wax rek ñoo ko wax. ñi ko war a liiral ba mu jeex ñi ko war a woo ñoo ko wax ñi ko warul wax rek ñoo ko wax il y a eu des morts il y am na ñu dee am na ñu wax ne lii am na ñu wax ne lële après qu'est-ce qui s'est passé ce qui mooy ñi war a wax ba ñu waxee mais débat bi dafa jeex ni ñu dem élection et peuple bi moom moo mën a moom moo moom moo mujjee génnee ne kii moo war a am droit wala kii amul droit donc voilà mon opinion sur cette question yaa ngi dégg voilà mon opinion sur cette question de manière très claire de manière très nette. non mais bien sûr xam nga kii lu muy wax waxu lii ma wax xam nga toog ci télé bi wax lu la neex. joxe sa micro liiral li ma wax gën li ma wax waaw li ma wax xam nga da ngay ñëw di taxal nit naan Pape Malick moo ne liiral nga micro liiral li ma wax liiral li ma wax ngay wax waaw la bon non li ma wax déglu ma rek ah, Pape Malick Ndour bon vu que tu es courageux Macky peut-il faire un troisième mandat liiral réponse Pape Malick Ndour Amadou Ba il n'a pas droit à un troisième mandat yàgg na continue mais des juristes sérieux disent il peut prétendre à un second quinquennat. non sans commentaire non wax nga teg nga sama. il n'a pas droit à un troisième mandat mais des juristes disent que les Sénégalais qui vous suivent ma wax waaye vous dites Amadou il n'a pas droit à un troisième mandat mais des juristes disent qu'il peut faire un second quinquennat. je le redis encore waaw je le redis je le redis encore waaye léegi je le redis encore. yow demal waaw je le redis encore. da ngaa bëgg mu waxaat rek. waxaat ko troisième mandat laa lay wax. munul nekk second quinquennat. ah mais loolu la wax. est-ce qu'il peut faire un troisième mandat non arrête ce discours là xam nga tu sais. non mais yow yaa wax yaa joxe sa publication nit ñi yoo ko lire jox la ko nga lire ko Sénégalais yi xam nañu sociaux les gens vont apprécier. non non mais c'est pas grave l'essentiel su la neexee nga publier ko ma li ma wax je l'assume. pour revenir encore à un débat d'ailleurs il a bien man parlant de cette affaire là je convoque les juristes sérieux yi nga xam ne ñoom ñoo ci war a wax et le juriste sérieux bu gën a mag nag ñu ngi koy xaaree ci conseil constitutionnel en toute sincérité ce débat là de mon point de vue c' pas un débat ku ñu war a soulever sànq wax lu am solo tu nous as retourné notre position effectivement man j'assume ma position de 2011 autant man j'étais je mu gënoon naa ne woy Abdoulaye Wade troisième mandat et cetera mais tey su ma xoolee li xewoon yëpp 2011 tintamarre bi amoon coow li amoon moor yi amoon xeex yi amoon xuloo yi amoon ñu teg ko ci lenn lu dul positionnement wu ñoo xam ne jànguñu droit xamuñu droit wala ñi war a wax sax waxuñu après conclusion bi ñëw nit ñi dem élection si jàmm ak salaam moi quand même je me retrouve dans la situation bi nga xam ne moom laa waroon am en 2011 mooy toog déglu conseil constitutionnel décrété kan moo war a dem élection ak kan moo war a dem élection. mais en attendant en le terrain pour la réélection du président. ah oui oui ça nag waaw maintenant maintenant nag tu me poses une question politique en attendant tu vas bi mooy man ndax président Macky Sall bëgg naa mu toogaat wala bëgg ba mu toogaat man mon opinion politique est claire président Macky Sall laa bëgg mu toogaat fi président Macky Sall laa bëgg mu defaat candidature. di am yaakaar nañ ne conseil constitutionnel dina ko valider loolu am na ci droit maintenant nag comme que man xamaguma président lu muy def je me prépare à ça je défends le président je me prépare à ça travaille pour le président je me prépare à ça dans ma base politique et partout damay fësal li président Macky Sall di liggéey et d'ailleurs soo xoolee ñoom sànq xaar mi am na lu am solo lu mu wax aujourd'hui malheureusement on aimerait bien que ñu nekk aujourd'hui ci temps proposition temps programme mais ñoom il le parce que simplement xam nañu ne foofu suñu fa duggee dañuy daanu parce que mënuñu fa wax dara donc man pour revenir encore une fois li ma bëggoon wax sànq parce que débat bi surtout wax na ay waxu dialogue ak yu mel noonu dialogue pardon di dialogue président Macky Sall li mu wax dafa leer il pas de élection avec les moom bu muy wax dialogue dafa wax comment vouloir de vivre ensemble bu muy wax dialogue dafa war a wax ne ñun dañu war a nekk ci Sénégal malgré nos différence ñu mën a dund ci jàmm dund ci salaam lan moo tax. président lan moo tax nga war a mën a yaakaar ne président li ñuy teg kilifa diine yi te politique rek lan newul loolu la bëgg ñu waxtaane pour que au moins ñu mën a bàyyi kilifa diine yi ñuy exprimer wu parce que y a eu tellement d'insultes suñu modèle de société bi ñu bëgg remettre en cause est-ce que newul loolu la war a pëncoo président waxu lay waxu élection de parce que waxu élection nekkul dialogue moo koy réglé waxu élection xam bi nga xam ne moom war a xam kan mooy dem ak kan moom dem loolu <laughs> président Macky Sall ci affaire élection leneen mais Amadou je vous dis directement da ngay déchanté président woowu leen ci affaire élection ndax affaire élection nekkul ne président moo koy lijjanti mais président nag mën na leen woo ci nañu waxtaan nag dëgg-dëgg yàlla pour que ñu wax ne ñun suñu différence am na dañ ko constaté yow gauche nga bokk droite nga bokk waaye nag suñuy fondamentaux yi nga xam ne moom moo fi ne. mais lan la ñuy discuter nañ leen di bàyyi. lan la ñuy discuter bu ngay wax dama la bàyyi. ñëpp xam nañ ne am na calendrier de discussion ñëpp xam nañu loolu. Ah suñu war ah bien sûr suñu waree wax ci wàllu élection wax ci am na calendrier boo xam ne ça n'a rien à voir avec ay café dialogue yu mel noonu chaque jour les gens discutent chaque jour les gens discutent chaque jour les gens parlent se parlent bien sûr donc loolu taxul muy wax président bu muy wax tey ci contexte bi ñu nekk ci fête indépendance il parle de choses beaucoup plus sérieuses sànq peut-être xaarim am na lu mu ci évoqué parlant de pétrole parlant de perspective ak yu mel noonu peut-être man fi ma d'accordul ak moom rek mooy peut-être xaarim vous avez parlé tout à l'heure euh, euh, de ressources du pétrole et non pas des recettes du pétrole li ñu dugal ci budget bi benn partie la rek mais Karim y a eu la loi sur le contenu local loolu bëggoon naa ci wax quand même y a eu parce que wax nga ne effectivement vous avez raison affaire pétrole doo ko analyser ci angulu lan mooy dugg ci kafa gi état rek en termes de recette fiscale wala non fiscale en termes de recette budgétaire mais il y a aussi l'environnement du pétrole mais l'environnement du pétrole est réglé et d'ailleurs c'est euh, euh, exploitation pétrolière et gazière bi li mu li mu war a générer. à part les ressources yu dugg ci gafaka état. mu ne on n' est pas préparé. on s' est préparé on n' est pas préparé. est ce on a des entreprises. aujourd'hui euh, sénégalaises yoo xam ne mën nañu répondre aux attentes. mën nañu fournir euh, tous les besoins. attention là je précise. je ne ah, parle pas de ressources humaines. non non je ne parle pas de recette budgétaire. Ah. mooy li nga wax ni recette budgétaire maanaam tey ci budget état lan mooy dugg en terme de en terme de recette non fiscale te nañ koy distribuer sax réglé nañ ko parce que avec y a ce qu'on appelle la euh, solidarité intergénérationnelle le fonds intergénérationnel ak yooyu yooyu c'est réglé. wax xaaral ma ñëw moom laa lay wax. Ah. il parle de l'environnement du pétrole. xam nga pétrole tey soo ko andee dafa am ay entreprises étrangères yu ñëw investir fii nekkul ne rek da ngay dem ñu dóor la TVA am na benn environnement bu ñuy wax boo xam ne ça génère beaucoup plus de ressources pour le PIB pour l'État de manière générale. pas pour le gouvernement si on dit gouvernement égal. mais yéen ngeen préparé. mais il y a le contenu local il y a une loi sur le contenu local xaaral ma wax la kaay ma expliqué la loi dafa am loi. loi yóbbaale la. waaw dama lay leeral. souvent yóbbaale la amul la loi sur le contenu local. am na nos entreprises ne sont pas armées pour capter toutes les ci loi boobu xam nga tey xam nga tey le président de la république parce que nag peut-être il a été inspiré da ngay dégg ba léegi ñu naan or bi way day jaar fii génn fa la dem na peut-être il a été inspiré sur ça et d'ailleurs il en a profité pour régler le problème même des des des mines ak yu mel noonu mais mun a je dis de manière claire il a une loi sur le contenu local. d'accord loi sur le contenu local lu muy wax en résumé mooy dafa am ay secteurs yoo xam ne dafay tourner autour du pétrole nga jël ci ay exemple am na par exemple restauration très intéressante et très am na transport transport aérien hélicoptère am na par exemple. base yi nga xam ne moom mooy am c'est-à-dire que tey aujourd'hui on a du pétrole en en en am na benn transport boo xam ne day jóge ci suuf yi dem ci kaw mais dama lay wax ne est-ce que xam ngeen ne am na benn société nationale boo xam ne ak Ely Kognal bu ñu créé boo xam ne Sénégal il est à na pour cent actionnaire sur ça ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc lu muy wax. Sénégal am na société buy defar ay pipeline. mais dama lay xaaral ma wax la dama lay expliquer dama jox ay exemple dafa am loi sur le contenu local yu ciblé ay secteurs yoo xam ne démontré nañu. que économie Sénégal toll na foo xam ne war na si mën a am ay champion mu am ay procédure pour décréter que yow par exemple tu es un champion national par rapport à ce secteur ñu sécuriser la ba nga xam ne la fay génne ci marché yaa koy am loolu c'est le contenu local ça existe mm. on peut faire un débat sur le contenu local et le contenu du contenu local de la loi sur le contenu local dafa am donc man Khadim vraiment man foofu d'accord ma ak yow liy leer ba leer daal mooy y a des recettes budgétaires qu'on a réglées et de régler ces recettes budgétaires là l'utilisation de ces recettes a été a été a été réglée donc avec euh, euh, le fonds intergénérationnel ñaata la ñuy dugal ci affaire bi ba sax wax na li ñuy dugal ci état bi fan la jëm mu bañ a dugg rek ci ay salaire ak yu mel noonu mais au de tout de ce qui se passe recette qu'on appelle recette budgétaire il y a ce qu'on appelle local qui règle tout ce qui est ressources générées par l'environnement du pétrole ku ma weddi nag da ngay dem internet nga def Google loi sur le contenu local Sénégal. nga xool ay dispositions non non su la neexee nga génne comme que ci am. expliqué depuis cinq minutes. non waaw su la neexee nga ne euh, expliqué ko les Sénégalais sérieux qui xam nañu ah. ne joxe naa ay exemple yu bëri te exemple bu ndaw bu ma la si jox mooy bu ndaw mooy Sénégalais yi est ce que xam nañu ne pétrole bu ñuy exploité en mer war ko andi en ci terre bi war ko mën a génne ci biti. nga xam ne parfois dafay laaj ay yenn interaction yoo xam ne hélicoptère moo koy def est-ce que Sénégal yi benn exemple rek laa si jox xam nañu ne am na benn société nationale boo xam ne Sénégal def na ko hmm. mettre na ko na en place CDC nekk ci actionnaire Eliconia et Sénégal est actionnaire à hauteur de 49 pour cent benn exemple laa la si jox soo jëlee yeneen secteurs yi tu peux donner tant d'exemples qui ont été fixés par la loi et où maintenant le Sénégal la possibilité de décréter en disant Maïmouna Ndour service qui a démontré ses capacités par rapport à ce secteur-là est décrété champion national par rapport à cette question et après am na possibilité avant kenn di gagné marché foofu moom sénégalais bi mu gagné. est-ce que dañuy raffiner pétrole a mis on a mis en place beaucoup de structures. est-ce que day raffiner ah, ah, pétrole bi tey la ah, mm-hmm. mu ngi fii mm-hmm. elle a la société elle a dem nañu ba soo xoolee Petrosen sax dañu dem ba changer ko mu nekk ay Petrosen holding mais yooyu yëpp c'était pour nous préparer à kuy dem bay former ay ingénieurs. ba tey à l'heure où on parle ñu mën a décréter ne am na soixante dix ingénieurs yoo xam ne ils ont été formés ici au Sénégal INPG bii lañ ko formé te INPG bi ñu ko forme tey foofu lañ ko formé te tey ñaari compagnie yi gën a mag ci Sénégal di exploiter pétrole bi tey ñooñu recruter lañ la ma pare kuy dem bay xalaat détail yooyu xam nga ne il a déjà intégré tout ce qu'on peut dire en termes de mobilisation de ressources nationales ah, notamment les les membres yi soutenir que euh, la non-participation du président de la République à cette élection de 2024 loolu rek moo mën a indi apaisement social. waaw loolu c'est leur opinion mais moi mon opinion je ne parle même pas de la participation du président de la République aux élections mais mon opinion mooy président nekkaat fi moom en tant que président man dépassé naa sax ay participation mais moom mu nekkaat fi en tant que président de la République loolu mooy garantir mais aussi suñu modèle démocratique loolu moom moo koy garantir ak suñu modèle de société au delà de ça man loolu mooy suma opinion moi je préfère plutôt parler de mes opinions plutôt que d'opinion de société civile boo xam ne dañu montrer fi ñu far dañu montrer suffisamment euh, euh, que ne ñoom nekkuñu société civile mais société civile la boo xam ne dañu am